asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Leewtoo TV tey la dimanche 9 juin woor nañ ba wori ñuy balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu jéggal te defal ñu saxadatu daara yi ne tey nag lan la mbuur bi waat jëm mois de juillet ngi loo tëj Fallou Ndiaye woote fi géwél ngeen xam ko dëkk Bawol dim pangalang waaye mujj di doomi yoof dëkk yoof mën a bëre lool ñoom lañ fi boole tey kon dama ne gars yi topp leen ci Leewtoo TV topp leen ci Leewtoo TV ki nga gis xool la tribune bi Talla Ndiaye tribune baa ngoog xoolal loolu gis nga wa gis nga wa gis nga bi yaa xool kon nañ dem Talla ñu xoole leneen. allo fan lan mooy problème bi. non problème bi mooy fii amul amul benn sécurité sécurité mooy CNG gis ñu fi kenn koo xam ne nii mën naa la situation bi booy buñ fi rayantee dañ naan tey ki organiser lamb ji moo moo organiser loo xam ne baaxul te ñun dañuy fay ay frais d'organisation kon CNG dafa war a doon bu doy ci lamb yi mais fii fi am rayante mën te soxlaa ñu lool ci làmb dañoo organisé pour jàmm mais li dégul fenn. du dëgg yéen waa CNG aussi da ngeen war a délimiter surface bi nga xam ne zone zone bi nga xam ne ku nekk fa nga war a yem mais lii day yàq làmb non buñ ko xamee vous mettez ça en application. caatu yaraax caatu yaraax bëgg naa la. waaw doolu ziar wér-wér. mbooloo mi fu ñu toppee caatu yaraax. waaw mbooloo mi de fi ñu caatu Yora mooy caatu xale la mbooloo mi bëgg ko ànd ak moom loolu kese la defaluma leen dara waaw. Janjum Joor la kee. toppal ma loolu taala. arbitre àtte na Malick. lu muy dox. lu arbitre di def. Maxi niil taala Ndiaye. waay niil nañu waay. taala. mbër bëgg naa la. bëgg na fii la waree fii. mbër lii nga tuuroo soow la wala suufu jañ la wala lan la. kaay ma ko jox xaw ma ah. waaw. koy bëreel. man booy bu ñu naan trompeur xaw ma day naxaate quoi benn njublang njublang. oui. isio booy beng la. doomu PA booy golf foo jaar ma doon daanaan. waaw. wax lii man la kàngam. ñam xam. kàngam a ngi taal. waaw du ma jaar jaar damay bàyyi. kenn du kàngam. isio booy beng la nigis. ma kàngam ak kaan bi. booy bi booy PA la de. booy PA man bawol bawol laa sëlëg ak yaay barki dem laa fa jógee dama fa am ay supporters ñu may béggee wóor na yàlla ñu ngi ni ci kaw. dañ ma chaque jour day jegeñ Babacar du ñu gis mas mosul laa jël. Babacar moom ñëpp ñëpp la fi nekkal. waaw noonu la demee nag xam nga kon doonu talalee micro tey dañ kontaan xool xoolal ñii lépp wàllu ba waaye. naa la. maa ngi lay baal ma àq si ko si korite gi. baal naa la ak baal ma àq. tey noo ñëwee tey. waaw ñëwee comme dama daa ñëwee rek. waaw di ñaan yàlla ndam rek. damaa gis moo jot dugg nga dugg. ngeen jot ci biir géew bi mel ni lu xeex. non loolu yëfu mber la rek. loolu mooy sarmi lamb ji amee loolu du dara. combat mën naa gaaw. waaw mën naa gaaw mën naa yéex. mais man pare naa tout. xeex bëre. tey damaa fas yéene koo jàngal bëre daan ko. daan moo jëfum la yóbbu. Mod de daan ko du ma yóbbu fenn parce que Mod de comme yeneen ñi la rek waaw. pare naa lépp tout waaw. Sénégal yaay bëree sa dàgga Talla xam nga dàggaam Babacar xam naa sa dàgga Babacar dàgga xamoo luy dàgga de Babacar ak maa xam dàgga lan mooy dàgga Babacar dag maa yàq léegi Babacar eh dàgga dañ fay moo ci dugub Talla Ndiaye fu ne dugal nga ma bojjukaay la fu ñuy bojj dugub la ñuy tudde Ndaka ja sa Ndaka ak Sénégal waaye lébu yaa ngi yëngu di yëngal de mu boo daanoo du baax senegal tur wi nga sa bopp rek ah du baax eh sa mbot na ko sa Ndaka mbot nañu la Sénégal daan na de eh Sénégal waaye Sénégal la daan réew mi daan na Talla Ndiaye réew maa ngooŋu kii mooy Sénégal waroo daanu waay Sénégal ca kaw daanu. Modou bëgg naa la Modou ci loone sant bu baax alhamdulilah baal ñu wax si korite gi naa la baal yàlla ñu yàlla boole jéeg ana waa Yof ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaar seen ndam man tey damaa gis bu dugg si tàng jër Modou lu mu yëg nii ndam rek laa yëg parce que ndam laa bëgg quoi lu waral cooli seen diggante ñaari kaay yi bon man de li ma li li waral cooli sama côté mooy ndam laa bëgg nu mu nu mu ko mën a amee nag naa fa lijjantee noonu voilà mais ñoom nag ñoom li li waral cooli seen côté xaw la fi mu nekk nii yow yaa ngi yëg sa bopp ne ko arbitre soufflé. billaahi rabbil alamin yàggatul. mën naa gaaw wala mën naa loolu lépp day dépendre si li ma ko waxoon rek bu arbitre soufflé dëggalal sa bop ma dëggal sama bopp ñu def fi góor voilà nee nañ kan nga man bërikat laa nañ def l'essentiel mu jeex. daan ko fu mu la mën a yóbbu. waaw na ma yóbbu parce que combat jànq la ñu koy coow mais li ma la waxoon rek yàlla baax na jaayef. mbaa ngoogu. ardo Ardo moo ñu féete Ardo ñu féete à gauche Golf Gaynde la joge moom Ardo trompeur Cheikh Mbaba trompeur trompeur féete droite trompeur moo yor ngemb la xonq li wala boog rouge blanc ndaysaan boo xoolee ay garde normal lañu pied gauche ñaar ñu tolloo ay xale ay bërekat ay bërekat war nañoo mën a bëre bëre bu neex waaw waaw war ngeen a mën a lu neex. laa ilaaha illallaah waaye xale yi waay waaye xale yi waay. laa ilaaha illallaah songule na ko na ko da koy daan na ko eh, xeex leen bëre leen. arbitre lu xew. borom koor mbaa daan ardo mbaa daan woo. ardo mbaa daan woo. ardo mba daanu wa wala a daanu am na lu xew de eh trompeur a daanu trompeur trompé wu nga ardo na la fi moom ay ay yu yàgg la <laughs> yu yàgg man ay niveau piment kaani saf seen combat Val d'Or la Fallou Ndiaye ko tëgg ak Kanji Val d'Or maa ko mën baal ma baal naa la yàlla na yàlla boole ji baal fekke déwén yu booy bi prince laa dendal yàgg na ko wër di ko jox sama avance waaye fuñ ko ko jox man ñëw naa ba di ko sama sa avance bi ñu jox bàyyil ma joxeel la yaa ngi dégg ba teg ci deux mille francs mu ni ma damay nelaw lu ma ci na ma fekk ma parcelle ma ne ko trois cent mille fekk ma géej kusum ñëwul buy ñëw ma koy xaw a rey waaw ñëwul mani yow xam nga ni man rue 10 ah réussite sama maam ñoo moom foofu yëpp billaahi wallahi tallaay dama lay wax ni la man ndakaaru dama fi am wàll li ma lay mën a wax nag mooy comme yow suñu waay nga ñun ñaar ñëpp bu ñu génnee ci kanam tuuti nga ñëw ma jox la liñ ko war a fay pour rek làmb ji am ngay dëgg foo koy organiser yow non kasum kasum lañ jëm waaw président ragalul kasum sëñ bu wa nekk naaw ya bëri na eh sëll bu ndaw asalem sëll bu ndaw asalem sëll bu ndaw soq soq jaxaay la jógee sëll bu ndaw asalem waaw waaw Talla Ndiaye combat Pape Abdou Fall ak Assane Ndiaye ndaw la nar a metti eh pare sa ko tëg jàppante nañu xeex sëlloo sa loog soq ew eh, waay na bu yaa daan waay ko taala waaw Babacar dama juum dugub laa wax danga faru taala Njaay toppoo danga maa yóbbuwaat ci àll ba Babacar ak yaaya ngongu Babacar kenn du yow nuyu naa waa ak sama dëkk mënuma leen a fay waa ak yaay ah, maa ngi leen di siyaar falaa laa dëkk te nag maa ngay siyaar te sama séeri loolu am sama xarit la sama jabar la ah loolu am yàlla ko yàlla defal jàmm amiin waay taala yàlla ñëpp am jàmm waaye loo ci mën a dégg dey Sëll bu moom li mu takk bari na lool. laa ilaaha illallah waaye Talla Ndiaye xool Sokh 2 Talla Ndiaye xool Sokh 2 a ngi Talla Ndiaye woo. Babacar naa la béyee. maama bal nañ la àq. bal nañ la baal ñu. maama fu mu nekkoon. man maa woon Gambie. loo doon def Gambie. dama doon woor. Gambie nga woor. falaa wooree falaa wooree. nga jëm ci combat yaag Jokal actuellement maama fan la toll. waaw di sant yàlla bu baax di julli ci bi di gërëm suma ñaari waajur di sant suma xarit yi ma fi àndal ndax ñoo ma gunge dooleel ma ma yegg si ma yegg si tey kon tey lépp lu ma mën a ñoom laa ciy jiital dañ fi demoon gàmmi nag préparé pour am benn un mois quinze jours bu ñu nekkoon foofu di préparé fekk fa sunu kër si moo Cheikh Diouf sama mag ami Diouf moo koy nuyu au ak ñoom sol xam nga gars yëpp taxaw si ngir ma am li ma bëgg quoi yee loolu moo taxoon mu jóge fii dem fa quoi voilà. dama gis benn poids bu mel dafa yokku ci Mama Lamine par rapport ak ngay dem poids bu yokku la wala doole wala lan la. non ñu dañuy liggéey sax xamuñu sax lu ñu yor doole pour man yàlla rek moo ko am kenn amul. non doole yu bëri laa wax. voilà mais tax man la ma wax ma la loolu. dañuy liggéey rek ñu sax li ñu am. mais yokkoo poids. non non man damay liggéey man damay entraîné no easy job no pain no gain. billaay wallaay no easy Jokal loo koy wax Jokal leen rek laa koy wax ku ma respecté la sama adversaire la mais le premier janvier ba le premier décembre fu bëree ma daan décembre ngeen di bëre wala. wax laa la wax dégg la laaj. nga ne la ak man daan xam nga say wax daa kawe yow. le premier janvier ba le premier décembre fu ñu bëree ma laa laalal ko suuf combat bi le 27 juillet la waaw. mais Jokal mbaa doyul waar ci yow. waaw peut-être ci sa gis-gis yow. wala gis-gisu amateur yi man kay laaj rek laay def gisuma lu bari de. waaw li ma laaj laa lay wax waaw man munu maa munu maa munu di sama wet ndax gis nañ adversaire bu ne mais ñu ngi ñaan yàlla yàlla cëral ñu may ñu ndam ci kattanam bëgg naa la Babacar fii la ëppee maa ngi nii. borom Sikam. Talla Ndiaye ñaari jabar. Talla borom may naa ko jabar ñaareel. mayaat nga ko ñaareel. mayaat naa ko beneen ñaar. Talla Ndiaye ngi nii. bari jabar. Talla Talla Paul ak Sibor. Paul ak Sibor ñu Lamine dégg na daa demoon jàmm gën ci doxaan ñu jàpp ko. waay Lamine jàmm gën ñu demoon wuute. boo jëlee information boobu Babacar. ko dégg léegi ci biir foo ko déggee. fii ma toog léegi. ci kan nga ko déggee Babacar. ci waa jàmm daa war a leer de. waa jàmm gën a ma ko wax. la wax ci waa jàmm gën. ah ma naan na bu turam. day metti rek. lamb daa war a metti lamin bu laal bébé jeen neex na. Pape Ndoye bu bëggee na ñëw jël bu laal. lamb ji mbër yi dañoo war a bëri te bàyyi bi looloo dëgëral lamb ji eh luy xew. Cees borom Cees kenn du la boole kenn waxal. est na lu ko dal lu nekk ci loxo bi. mais Babacar bu mënul buñ ko bëreloo. bàyyi ko ba xam lu médecin yi wax ak moom xoolal ma ko. loxo bi yaa quelque chose. arbitre dañuy jël décision. Sibor. awa yi na ko. baax maa nga lay baal ma koor gi. baal naa la baal naa la. ba Sénégal yëpp a ngi lay balu àq. jërëjëf maa am nga jàmm. am naa jaam bu baax. tey da ngaa ñëw lamb lu woon di baax tey lamb ah damaa ñëw ànd ak sama bàjjan moom nga xam ne moom lañ uh, tuddee làmb ji ma ànd ak moom gunge si ko ci làmb ji quoi muy madame Fall laa. baax lu baax lu mu gisee làmb. Hmm? nu baax gisee làmb. dafa baax ci dëkk bi. baax am na mbër. am naa mbër kay. kuy sa mbër. am nga jàmm. Leewtoo production. <laughs> tonton Diaw. waaw na ngeen def ñu ngi leen siyaare. baal ñu àq waay. baal nañ la yàlla ñu yàlla boole baal. tudd nañ tudd daan drapeau si làmb yaakaar naa du gan. mais tey ñu keneen ñëw di la delloo ñu ko muy Fallou Ndiaye looy wax sénégalais yi ak looy wax sa mbokku amateur ak waa làmb. ñu ngi lay siyaare Babacar gannaaw ba ñuy baaloo ñëpp àq. nga may ma ma jaale la moom Medoune Niass mi ñu naan toog ak mu fii di seetaan lam di ko jaale njabootu sportif yëpp di ko jaale ministre des sports di ko jaale waa gendarme di ko jaale sëñ Mbaye Mansour mooy xalifaam ndaxte moom sëñ Babacar rek la bëggoon ak gendarme ak parti socialiste di ko jaale Ousmane Tanor nga may ma ma jaale. ku ñuy wax Sadia Thioune grand bu baax nekkoon amateuru làmb démb suñu borom jël ko yóbbu ko tey Touba maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko suuf Touba sëñ Touba teeru ko teg ko si loxo Rasulullah sallallahu mu xaar ko àjjana ak mboolum jullit ndaxte muy mag ju baax tey nag bésu Fallou Ndiaye mbégte la gis nga jaww ngi nii toog sama wet ñëpp ngi nii sama gannaaw amateur yëpp ñëw. tey fii amateur desu fi kon nag ñoom ñoo moom bés bi ma leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak sutura Fallou Ndiaye nag démb rek Pape Abdou Fall ànd nañoo ak moom bu ñu indil ma nag sama kër mooy war na ñoom tuddeewuñ ñu ma làmb yi ngir xaalis dañ ma ko tuddee ngir soppe ak xarit xam ne amateur mënul dem sans promoteur promoteur mënul dem sans làmb kon ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ma bàyyi nga wax sama waa ji jaw moom moom moom naanaan la jaw mënul wax si mënul ñàkk wax si làmb mënul ñàkk wax si bésu amateur noiro wane ginnaaw moo fete droite booy ñaa jàkkaarloog ñun fete gauche ñu ngay lewaatu di doxe wet Noiro ak Boy Niang waaju baax waay Pepe Kalere Fane Pepe Kalere Fane Pepe Kalere Fane Pepe Kalere Fane waay waay Pepe Kalere Fane Pepe waay waaju baax waay inspiration ba graw ak yaay laa dëgg eh, la ilaha illallah yee dawal na ko la ilaha illallah eh Talla waay nooroo bi waa nooroo fu mu jógee waay waay waay Talla lii rëy na Talla loo wax ci lii waaw lu mu def yóbbu ko góos andi ko droit xanaa loog bu rëy rëy waay noiro oh booy ñaar téel bañ la daan rëy na. waaw maa ngi lay fay Babacar. moom mbañ ñëwal ci production. waaw eh, maa ngi lay fay di la gërëm. ah di la wax tamit aussi tamit baal ngeen baal ma àq baal naa leen àq ci Korité gi ñu jógee waaw ñu am bis yu rëy nag yoo xam dañ ko dëgmal muy le 7 juillet ñu ngi war a dem Thiès. diggante kan ak kan. diggante euh, euh, booy. petit kona la wala naa ak euh, jibi weñ gi. mooy booy bi naan Margot numéro 2. ah ñu jóge fa ñëw le 27 juillet fii Dakar diggante Arobas. ak euh, Boy Mankaañ bu Kër Massar kooku drapeau Masata Ndiaye la magu Asin Ndiaye magu Baye Ndiaye yaa ñu ciy woo Sénégal gépp ndax xam nga ne boo tu jëlee drapeau tuddee ko Masata magu Asis ak magu njaay Ndiaye tudd nga ko Sénégal tudd nga ko waa làmb ma nekk loo ci wax waaju baax kii dama bokk moom dëkk bokk ak moom lépp foo dëkk yow waaju jabaram di sama xarit sama lépp ñun waa Kër Mbay lañ waa Réfane waa Sénégal lañ daal waa Sénégal lañ ñun ñëpp yow Réfane nga dëkk yow man Sénégal la dëkk. Sénégal xam naa loolu waaye dama la dégg ngay tudd Refane. Refane Refane samay baay fane samay. dafa man maa ngi dëkk Samba Kane Kër Madia Kaba. xam nga ndondol. laay laay la laa. waay waay doom yow. yow tudd nga waay tudd sama dëkk waay. ndondol Ndiamane. maa ko xam. dëkku maître Pape maa ko xam. man nag yaay laa dëkk. ah ak yaay ca côté Ndondol. kon kay ñun ñëpp ay mbokk lañ. bawol bawol la li ma la bëgg xamal la 27 juillet. di nga gis lamb joo xam ne mosu koo gis ci àdduna yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm nag loo ñu ciy may ba la ñu saa yeeg drapeau Massata ci laay génne sama fecc bi bees bi ñu naan pepe kale reefaan pepe kale reef ay pepe kale reefaan la xam nga loolu du ndaw waaye yow koy tuddi nga ko Aziz Ndiaye tuddi ko képp kuy famille Aziz Ndiaye tuddi mooy waa kër gi Massata mooy kër gi Ndiaye kër gi Ndiaye drapeau kër gi Ndiaye maa lay fay baagar keroog nga woote Bambey ñu ñëw kenn xaju fa ci xale bu ndaw lu petit wax sénégalais. waaw kontaan rek man defaluma gars yi dara quoi mais xam nga lépp kontaan ak waral yaa ma gën a xam mais lépp yow sama doom yaay nga. Talla Ndiaye combat social la moom. Sol su bus ak Bougane. Ndaysaan jàppal combat loolu ci combat social yi la bokk. Bougane ak buus. Bougane leen man ginnaaw buus ngeen jàkkaar lool. ñu ngay doxe wet ñaari fausse garde ñaari fausse garde ci Leewtoo TV ak Walf TV ñu ngay doxe wet ñu ngay doxe wet waa puusa koo fatte bugaan xeexa doon gën ci yow waxal. Babacar maa ngi sama DG Massamba Mbaye sama xarit la Massamba Mbaye groupe eh, day jël mu bañ. micro seen TV ngi may seen. béré dalay tan tan na ko away ah jàppante bi baaxul ci bugaan jàppante bi baaxul ci yow eh, bugaan daanu na bugaan daanu na dafa juum oh Talla Ndiaye sensé patron ba daanu ay waay bugaan daanu na waay. ay fay Babacar félicitations. waaw wey wey noonu. combat métti na mais daa mel ni daan nga de. waaw waaw waaw moo demee noonu lamb moom. waaw des fois da ngay ñëw mu ne suba nga mu métti aw ma seen fay. sama pataro Abdou Kanji. Kanji aw ma fay ñii lépp. Kanji mu raam daan. waaw ñoom lépp ne Kanji mu Wally Seck. waa jeena. Faramaareen. waa Kanji bu Sër Sobu. Kanji mu Boy Niang. waaw waaw dafa leer. arbe soufflé na ba tey combat spécial drapeau sëñ Samba Ndour Nokia gauche Agogo droite Nokia école de Liberté John la nekk Agogo sakku xam-xam ci Ibrahima Ndiaye wala Agogo ak Nokia bokk ma naan wulli daw na jël tànk ba jëlaat na mu bañ Nokia bañ na Nokia bañ na loolu ey eh, jàppante nañu Nokia da xabal na ko laa ila ñaari ca xabal eh double cop door na ko tànk daan na ko jël ba rëy na jël ba rëy na eh Nokia daan na ko waay da ko door tànk waay laa ilaha illallah nekk liiru liiru combat bii nii isam lu ma la ba man sama combat la yow man sama combat la combat bi man combat bi yàlla sunu borom man yàlla moo ànd ak man xam nga nit Babacar nit woon na lool ki man yàlla woyu ma yàlla ku mu taal kenn mun laa fay yàlla ku mu àndaat kenn mun laa daane man yàlla laa moo may jàppale ay barkam Mouhamed seeni poxo poxo du mu ñaanal ay ay nit yi yàlla ay nit yoo xam ne barke sëñ Bamba ay nitu yàlla ñooy ñaanal luuru mais xam nga la mooy bi kii affaire muus jéem a jaay day dër dër dër dër pour nit pour nit ñi yërëm ko muy kër kër lu pour ñi yërëm ko muy muy wax di coomer pour nit ñi yërëm ko yow kenn du la yërëm yow rek laa la wax. xam nga ne yow man dama am dër xool yaa koy usuy bi ruwa usuy ruwa usuy woo barke sëñ Sall. Caatu Yaraax combat spécial avant grand combat ñu ngay doxe wet dab daan Caatu Yaraax dab daan loo sot la mujj a bu yaraax daw na jël ko daan na ko away mbaram Serigne Ndiour ma eh mbaram yaraax mi fayu na daa fayu dafa fayu daa fayu. agogo ngi mbër di courage da ngaa ñàkk bi yaag Nokia. waaw waaw waaw waaw. lan dal ni waaw damay sant yàlla. julli si yeneen yeneen bi sant samay ñaari waajur di jégalu ñëpp nag di baalu àq ñëpp di jégalu ñëpp damaa juum mën naa man ma juum parce que xam nga bu combat bi démarré dama ko commencé dóor góos góos mu koy encaissé ma gis ne dëggal na boppam man ne ma jeexal combat bi ma ñëw indi une ba ma ko dóoree trois ci bu dal sama loxo damm moment boobu la jógee dem ardo ba muy ñëwaat mënutuma ngëp loxo bi loxo bi mënutul ngëp mënutuma ko ngëp mënutuma mënutul taaleeku bu ñu ñëwaatee làmb ji xam nga dama forcé loxo bi téye ko di ko nëbb xam nga mais boobu tamit comme naa ne man waa ji barki yonent yàlla Mamadou combat bi dama ko doon jeexal mais yàlla bu la mayul ndam mooy loolu noonu. dama félicité ko ko rek. non félicité naa ko te yéene naa ko ndax yàllaa ko ko sédd ndax nii la ko yàlla dogalee. ndax bu la ba ma gaañoo. moo garaameri ñëpp. wala mu ngay waaj a soufflé Malick Ngoboy arbitre soufflé na nuyu na ñëpp ñuy suivre à travers le monde ba bismillah maa ngi lay bëggee Serigne Ndiour ca Italie maa ngi koy bëggee Benzema dem nuyu naa la Khady Rose Ndiaye du ma la fàtte arbitre soufflé na ñuy lewaatoo. ndeysaan na ko. gëddaat na ko moo ja arrière waa ndeysaan addina du ko moo ci jël na kewel de du la gaaw a bàyyi ba baaxul ci yow kewel da dawal dawal na ko kewel bañ na eh, da koy bitar ñi da koy daan na ko jël bu rëy la ilaha ee Modou Dia di jàpp di bàyyi woo pop pop pop Talla Ndiaye Talla Ndiaye toppal ma lii ana ana suñu suñu suñu topp yi saxagul topp ya non foog yàlla taw bu tawee lay sax inshallah léegi li ma lay laaj mooy ci combat dama lay laaj tey en tant que reporter amateur boo xamante ne yàgg ngaa seetaan lam noo gisee combat bi waaw non combat bi ni ma ko gisee mooy Modou Dia li ma lay wax rek mbër la boo xam ne waxoon naa ko maanaam moom action su ko amee du ko bàyyi boo xoolee te avant muy am action bi dafa ubbi loxoom góosam door ko kewel kewel dafa jël guubu góos guubu boobu nag da ko empêché léegi bi loolu amee nag ci biir gëdd bi noonu mu koy gëdd mu jëti arrière mais da koy aspiré pour mu ñëw pour mën a daje ak moom moo tax bi mu ñëwee bi mu ko jàppee tànk bi la jàpp mu yaakaar fa lay yem mu aj loxo yi ca kaw moobu ko du ko bàyyi parce que bu jàppee du bàyyi noonu la ko tëjee tëj ko ba sukkar bi ko ànd ak moom daan ko jëli bu a